الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر walillahi alhamdu mbokk jullit yi ñi ngi sant suñu boroom mi nga xam ne mooy boroom mbindaa fa ni mboole seen suñu boroom boobu nga xam ni mbooli mi xéewal yu mat ci xéewalam la mooy jéggal ay jaamam la nga xam ne mooy seeni bakkaar di far seeni ñaawteef di nangu seeni jaamu yàlla di suturaal seeni ayib moom moo dundal ñay dund moo rey ñay faatu ku am moo la jox ku ñàkk ci dogalam la aju moo jubal ña ko soob ci ay jaamam mooy reetaanloo ña ko neex di jooyloo ña ko neex mboole mi cant yépp dellu na ci moom amul doom amul nawle amul kenn kum bokkaaleel amul kenn koo xam ne dana féetewoo lenn mu jëriñ ko àdduna ak àllaaxira lu dul ko ko féetewoo ñi ngi koy màggal màggal gu amul àpp ñi ngi koy sant sant gu amul àpp di seede na moom dong mooy ki nga xam ne moo yeyoo ñu koy jaamu ay yéen mbokk jullit tey jii ñi ngi daje ci daje boo xam ne moom moo tëj fukki fan yu màgg yi ñu yàlla jagleeloon doon daje boo xam ne waa makka tey jii la ñuy daje ci yowmul xajjil akbar bisu aj bu màgg ba tey la ñuy def la gën a màgg ci aj sànni jamraat ya rendi hëdiyu ya def tawaaful ifaada delluwaat ci seen yére normal ya ñu amoon loolee suñu borom tasaare ko ci mbooli mi jullit yi nekk ci kaw suuf borom bi mu ne amul benn xeet lu dul defal naa ko façon jaami wunu yàlla ngir ñuy jaamu yàlla ci bàyyuma yi loolu nag lenn ngeen ci war a jànge ilaahukum ilaahun waahid seen yàlla yàlla benn la ngalawaay mbokk julit it bokk na lu muy jëkk a fàttali jaamu yàlla ilaahukum ilaahun waahid seen yàlla benn la mooy ñun ñépp ni ñu tooge nii kenn xoolul ndeyjoor wala càmmooñ ñi ngi jàkkaarloo ak suñu boroom lii moo war a nekk suñu dund yépp jullit du yaakaar ku dul yàlla du sukkandikoo ci ku dul yàlla du màggal ku dul yàlla jalla wa ala boroom boobu ne defal naa leen ci jur gi giléem yaag nag yaag xar yaag bëy ya loo xam ne dangeen ca tudd yàlla ma tàggatal ko ñeel leen ngiree yit ngeen doon di ma sant ca mbokk mi ngi noonu mboole mi xéewal yu nekk ci yow julit e waay xamal ne yàlla dong moo koy joxe booy sant santal yàlla moytul li xew ci jamonoy tey diw na nga def maa ngi sant sañ diw mbokk sañ diw moomee amul sañul sañ diw moomee la nekk ci moom yàllaa ko ci def yow it li nga nekk ci yow yàllaa ko ci def loo yaakaar adduna ak àllaaxira ci yàlla dong lay doon kon yàlla moomu la ñu war a delloo mboole mi cant yi jëkk ko ci suñu xol ya xam ne mboole mi xéewal ci moom la jóge feeñal ko suñuy làmmiñ sant ko sant gu wér feeñal ko suñuy jëf ca mooy mboole mi xéewal ñu delloo waat ko yàlla suñu boroom waaye gannaaw loolu mbokk jullit bokk na la nga xam ne it lum ñuy jàngal mooy li borom bi subhanahu wa taala wax wali tukabbiru llaha ala ma hadakum mooy ngir ngeen màggal yàlla mbokk it daf ñuy fàttali ne yàlla gën a màgg leneen lu dul yàlla ey yow mi nga xamee ne nii yow yaay boroom kër gi li ngay yilif yilif kër gi xamal ne kat sa borom yàlla moo la gën a màgg ey waay nga la waay kër googee xoolal noo koy doxale doxale ko ci bànneexu yàlla yow mi nga xam ne yaa yilif réew mi xamal ne allahu akbar yàlla gën a màgg réew mi du sam réewu yow jaamub yàlla nga bu nekk ci réewum yàlla réew moomee doxale ko la neex yàlla su ma tuddee ñaari màgg yooyee yow mi nga xam ne yaay soxna yow miy doom yow mi en ab ab employé yow mi directeur de service nga la way foo mën a nekk del bàyyi xel allahu akbar yàlla gën a màgg lépp ca mooy lépp loo xam ne yaa ngi koy jiite nga la way bu ko jiitee sa xalaatu bopp ak sa bànneexu bopp xoolal lan moo tey bànneexu yàlla waaye yow tamit mi ni jiite xoolal ka lay jiite ci lan la la jiite ba mu la woo mukk ci loo xam ne daa safaanoog la yàlla bëgg lu tax mooy allahu akbar bu mu la tere mukk loo xam ne yàlla ko santaane lu tax mooy allahu akbar allahu akbar boobu la ñuy it di gën a fàttali doonte ne day keroog ba ñuy noddu allahu akbar ba ñuy liqaam allahu akbar ba ñuy ubbi julli allahu akbar buñ doon jihaad allahu akbar loolu muy wane ne mbokk umma islaam kenn dong lañ màggal muy yàlla jalla wa ala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li muy màgg màgg màgg bi ngeen dee taayee léegi bokk na li ngeen wax wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu maa ngi seede ne yonent yàlla jaamam yàlla la yonent yàlla la jaamu yàlla la kenn du ko jaamu jaamu yàlla la kenn du ko yaakaar jaamu yàlla la kenn du sukkandiku ci moom abduhu wa rasulu loolu la doon wax ña ko doon bëgg a yëkkati mu ne déedéet quulu abdullahi wa rasulu dee leen wax jaamu yàlla yonenti yàlla naam jaamu yàlla la waaye mooy rasulullah mi nga xam ne kenn wurta jaamoo yàlla lu dul la nga xam ne yonenti boobee moo ko jàngale mbokk lii mooy la nga xamee ne nii takbir yooyu ngay wax foo mën a toll allahu akbar allahu akbar mu lay fàttali màggalug yàlla laa ilaha illa allah di la fàttali wéetalug yàlla walla walil walillahi alhamd di la fàttali cantug yàlla mbokk ay yow julit gëmal ne suñu borom yàlla nee ne ay yéen nit ñi yéenay doon ñu aajowoo jëm ci seen borom seen borom nag mooy ke woom le soxlaalu leen ci dara yow julit yaay ki nga xam ne yow la sa borom déclaré loo qul illahuma malikal mulk ay yàlla mboole mi moomeel yaa ka moom yaay jox nguur ku la neex di jox moomeel ku la neex yaay nangu la la neex te ka nga xam ne joxoon nga ko ko yaay teddal ku la neex yaay toroxal ku la neex mboole mi yiw sa loxo rekk la nekk te yaay ki am kàttan ci lépp mbokk lii julit bi ka xam day jébbulul boroomam jël la nga xam ne mooy dundam gi jagleel ko yàlla jalla wa ala te mooy déclaration bu màgg boobu qul inna salaati wa nusuki wa mahyaaya wa mamaati lillahi rabbil alamin nga xam ne sa dund gi ngërëmal yàlla moo ko gën a màgg sa bakkan bi sa njaboot gi ngërëmal yàlla moo ko gën a màgg heure boo xamee ne nii gis nga ne ngërëmal yàlla ci lii la nekk lépp lu la koy jox loolee da nga koy daal di joxe suñu borom jox ñu ci misaal ci benn famille bu màgg bu nekk meloka bu nekk royukaay ba ila yawmi diin benn famille bu màgg kii di ibrahima alayhi salaam kii di soxnaam sa haajara kii di doomam ji ismail ibrahima alayhi salaam dem na ba ëpp juróom-ñetti fukki at amul doom yàlla may ko doom doom boobu nekk doomam sëtam sëtu sëtam suñu borom yàlla xëy na ko demal yóbbu ko ci àllu makka kenn dëkku fa amul mbay amul ndox amul dara ca biir montagne ya demal nga teg leen foofu ibrahima dox 600 kilomètres daa di dem ba makka bàyyi fa soxnaam sa ak doomam jooju nga xam ne moo nekkoon meññitu xolam waaye soxnaam sa tëdd boobee nekk royukaayu jullit ña ba ilaa yawmi diin bi ibrahima ne leen toog leen man maa ngi nibbi mu topp ko ne ko ibrahim fii nga ñuy bàyyi ibrahima wan ko gannaaw di dem ba ci ñetteel bi mu ne ko ibrahima dag ñuy bàyyi fii ibrahima woon ko gannaaw mu ne ko waaw ndax lii nga def yàlla la ko sant mu ne ko waaw mu ne ko kon demal lan ñu day ana demal yàlla du ñu seetaan ay yow soxna soxna julit ay yow janqub julit bàyyil xel haajara moomu ca mooy képp koo xam ne def ne ndigalu yàlla lu mu metti metti yàlla du ko seetaan na naam haajara jaar na ci metit toog na ndoxam jeex doom jaa ngi yuuxu ci ay tànkam mu daw ba sa foo gisul ngiree dana xool ñuy romb ngir ñu mu dimbali leen amul kenn mu daw ba marwa 400 mètres def ko yàlla di ko seetaan ba juróom-ñaari yoon ca la ko suñu borom yàlla doog a xettali bëttal ko maa u zamzam bi nga xamee ne nii depuis plus de 4000 ans doomu aadama yi ñu ngi koy jëriñoo ba suñu jamonoy tey mbokk mi ngi noonu jébbalu gu màgg googee ibrahima jébbalul boroomam gannaaw ba mu joxee boppam ngir ñu sànni ko ca sawara wa mu jébbal njabootam boroomam waaye haajara it nangu dogalu yàlla waaye bu ñu delloo ca seen doom ju màgg ju tedd ja jóge ci ñaari waajur yu baax yooyee di ismail alayhi salaam keroog ba ko baay bi ñëwee ne ko ismail sama borom yàlla day wan na ma ci samay gént nee na naa la rendi mu ne ko ay sama baay defal li la yàlla digal danga ma fekk ma bokk ci ñuy sant mooy mu jaar tànk ya yaayam ja jaaroon keroog ba yaayam di wax ibrahim ndax lii yàlla la ko sant mu ne ko waaw mu ne ko kon demel nibbi yàlla du ñu seetaan gannaaw ba ismail mu ne ko ay baay defal li la yàlla sant danaa bokk ci aji muñ ko di suñu borom yàlla dogal ba ibrahima jëlee ismail ba daal di koy tëral ngir rendi ko ca xamal ne tey jii bokk na lu gën a metti ci aj makka muy la nga xamee ne nii mooy sànni jamra ya yal na yàlla fay gouvernement saoud arabie saoudite def nañ ci ay pexe yoo xamee ne nii bu dul ndogalu yàlla rek mën na am catastrophe ya fa daan am dootu fa amati waaye bu ñu xoolee dans l'histoire la ëpp ñu daan dee aj makka ca jamaraat yàlla lu waral loolu mooy ibrahima ak ismail bañ demee ngiree def ndigalu yàlla seytaane da leen a feeñu daa jële ibrahim ma yow naka ngay jële ay gént nga bëgg cee rey xale bi nga xam ne deful dara mu sànni ko ay xeer ca jamratul aqaba seytaane découragé wul dabat ko ñaari lu yoon ibrahima sànni koy xeer mu dem ba ci ñetteel ba ibrahima sànni koy xeer lii léppin mbokk leen dong la ñuy jàngal heure boo dogoo ne da ngaa jëm ci yàlla xamal ne suñu noon bi seytaan takk na ngembam ba mu dëgër këcc lum man ci yàqal la jaamu yàlla googu dana la ko def waaye nga la waay fàttalikul dogu ga ibrahima dogu woon bañ demee ba dogu ci ne kat ibrahima dara desul lu dul rendi ca la borom bi subhanahu wa taala ne ko nag ibrahima dëggal nga gént gi ma la gi ma la digaloon jox ko la nga xam ne mooy am xar mu màgg ibrahima daal di koy rendi suñu borom yàlla nañ ne xool leen ibrahima de mi ngi nii yàlla subhanahu wa taala jox ko not ya gën a kawe waaye nag mu ne kazalika najzil muhsinin nii ibrahima rafetale naka nii it képp ko rafetal nii laa koy faye ay yow julit xamal ne mbir mi bala si yaay di bind sa biiru yaay kenn fekkewu ko moo la bind moom rek matal la moom rek génne la moom rek moo lay dundal heure bu ko neexee mu rey la ngal la waay yàlla moomu delloo ko sa bopp jébbalul ñeel yàlla sa bànneexu bakkan na nekk ci gannaaw bànneexu la sa boroom sa lépp loo bëgg na nekk gannaaw ba nga jëfee si ndigalu boroom suñu boroom mu ne ñu mel nii day kazalika najzil muhsinin yàlla subhanahu wa taala dana leen fay te bokk na boo rafetalee borom bi subhanahu wa taala nee na ibrahim aataynaahu fi dunya xasana wa innahu fi l axirati la min alsalihin rafetal na dundug addunaam ca àllaaxira danaa ko boole ca ñu baax ña ay yow ndawal julit xamal ne diplôme bi gën a siir alal ji gën a siir en mbokk yi gën a siir mooy nga fexe ba am ragal yàlla fexeel ba juboo ak sa borom jàngal sa diine daa di tege ca la nga xam ne mooy yoonu gaa yu baax ya wallahi garanti boobu mooy li gën a nekk garanti ci ne yàlla subhanahu wa taala dana la may dund gu dund gu tedd dund gu barkeel dund gu yaatu rafetal la nga xam ne mooy sag mucc ca bis boo ko fekkee àllaaxira mu teeru la ca la nga xam ne mooy la gën a màgg ci àjjana yu kawe ya mbokk suñu borom yàlla subhanahu wa taala mu ne bashiril muhsinin béggalal ñuy rafetal waaye xamal ne rafetal mbokk julit yemul ci rafetal julli yi ak koor yi ak aj makka waaye rafetal it mooy rafetal jëm ci jaamu yàlla yi ay yéen borom kër yi rafetal leen jëm ci soxna yi rafetal jëm ci njaboot gi ay yéen njaboot gi rafetal leen jëm ci wayjur yi ay yéen dëkkandoo yi rafetal leen jëm ci dëkkandoo bu leen lor seeni dëkkandoo xool leen seeni bët seeni nopp seeni bakkan bul def lenn loo xam ne ni ma ngay tànqal say dëkkandoo lenn loo xam ne day ah yàqal sa dëkkandoo ak xet wala leneen lu mën a doon képp koo xam ne ànd nga ak moom yàlla dogal mbokk dox seen diggante lu ma sori sori sori soo ko mënee jokk jokk ko loolee ci rafetal la bokk bal suñu borom subhanahu wa taala yonent bi alayhi salaam nee na yàlla bind na rafetal ci lépp lu mën a doon ba mu jox ñu ci exemple boo xam ne exemple mënu koo passé nee na yàlla day am na benn ci ay jaamam la tax mu gërëm ko ba tabbal ko aljanna daa rafetaloon jëme ci benn xaj ey yow julit bi yàlla mi gërëm ku rafetal jëm ci benn xaj ba tax mu tabbal ko aljanna ana nag ku rafetal jëm ci doomu aadama ana ku rafetal jëm ci julit ana ku rafetal jëm ci jegeñaali kon dee leen bokk ci ñuy rafetal di baal ña leen tooñ te bañ a doon koy tooñ kenn di dellu ci yàlla subhanahu wa taala lépp loo xamee ne nii moom nga mën a def su dund gi mooy naka laay def ba jëriñ doomu aadama yi naka laay def ba doomu aadama yi gërëm ma waaye mu nekk ngërëm moo xam ne day làqu ci gannaaw ba nga amee ngërëmal yàlla jalla wa ala mbokk lii ñu ngi leen koy dénk góor góorlu leen la gën a màgg ci rafetal fonk leen julli fonk leen koor yi loolee nag lay baas ba ko mën a dékku mooy jàng leen seen diine yéen góor yéen jigéen jàng diine amul retraite jàng diine da nga caa war a nekk ba yàlla subhanahu wa taala faat la ca foo mën a toll ngay ñaan yàlla yokk sa xam-xam ñi ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala yal nañu yàlla nangul suñuy iit yal nañu yàlla jéggal suñuy bakkaar yal na yàlla subhanahu wa taala yërëm ñu yal na yàlla defal ñu aafiya fi dunia wal axira yal na yàlla yërëm suñu waajur ya jiitu yal na yàlla yërëm mboolem julit ya nga xam ne ñooñu jiitu ci biir suuf yal na yàlla barkeel suñu njaboot yal na yàlla bëggloo leen diine yal na yàlla dundaloo leen diine yal na yàlla def leen ñu seral suñu xol adduna seral suñu xol alaxira yal na yàlla wàcce jàmm suñu réew yal na yàlla musal ñu ci bépp fitna bu ñuy teqale yal na yàlla ubbi xéewal ci suñu réew ba suñu ndaw ñi di dee ci géej yi yàlla may leen lu tax ñu xemmam toog ci réew mi yal nañu yàlla wàcceel xéewalam ak suturaalam yal na yàlla faj mboolem ñi nga xam ne dañoo feebar nekk ci kër yi wala hôpital yi mboolem jullit yi nekk ci biir prison yi yal na yàlla yombal leen génn leen fa ci jàmm mboolem ñu tumurank ci tukki di sàkku ji wërsëg yal na yàlla yombalal leen lu tax ñu mën a dellu si ci seen réew yal na yàlla rafetal la nga xam ne mooy suñu mucc musal ñu ci mbëggalum bàmmeel ca waxtu wun dajeeg moom mu defal ñu jannatul firdawsi mi suñu wàccuwaay allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد